ma juddoo laa doon taalibe Serigne Touba ndax moom lañ ma tuddee sama baay Cheikh Ibra moo ko tuddee boppam sama maam Serigne Cheikh Ibra lañ ko fa sa joxoon addiye te bi mu fiy jógee duggoon am na téeméeri te bu mu demee léegi fukki at laa ak ñett kon mag la woon ca mag ña la bokkoon mille cent 1807 la fi ñëw woon kon kooku nga xam ni kii maam Cheikh Ibra lañ ko tuddee mu tuddee ma Serigne Touba kon man murit laa te kon wóor na wóor yàlla ni bu daraja mi ngi yem ci nga doon murit te man murit laa bëgg-bëgg man na tax nit wax lu dul dëgg te man sëñ Tuubaa dimbali na ma ragal dina tax nit wax lu dul dugg te man ragaluma dara ndax duma tooñ wala bu ma ko defee teyuma ko kon lii ma koy waxal lu wér la biñ ñu boolee liggéey bi ak lu ko jiitu ba tey jii li mu jànkoonteel ak li ma jànkoonteel man moom yàlla rek a ko xam keneen xamu ko mosu leen ko dégg mu tontu te xam na lépp hmm. mosu leen maa dégg it ma tontu ndax dafa may wax jarul a tontu ndaxte tontu daal la ngi ci kanam ndax sëñ Abdoulahat dafa daan wax wax ju rëy dafa ni boo duggee ci néeg ngeen wax mu ngi mel ni wax jii ñu wax fii di ko wax bu ñu génnee néeg bi kenn newu fi ku duggaatoon ci néeg bi doo xam ne wax nañ fi waaye boo jëlee xottu gerte teg ko fii ci néeg bi ku ñëw dina xam ne teg nañu fi xottu gerte nee na loolu moo tax nit warta weddi jëf da koy da koy da nga koy weddee jëf jëf ji nag bu melee nii yàlla dimbali ñu ci ci dure durée biñ ko def euh, xam naa ni sëriñ bi la sëñ Tuubaa la ndaxte lii yombul ndax euh, bi ñu ko tàmbalee man ak moom ànd nañu fu ne dem nañu Italie dem nañu Allemagne bi ñu jógee Allemagne di dem itali sax oto lañ dugg da ngay xool nga jóge eh, Allemagne Stuttgart la ñu jóge jël oto ndax booba mënuñoo am avion jaar Suisse jaar itali doog dem fa Marburg ne nga xam ni loolu mille quelque quelques la keroog restaurant ba ñu añee daanaka du restaurant sax dañoo dugg rek daanaka naan ndox wëlbatiku dem ak ak julli moo ñu fa jaaraloo nga xam ni jànkonteel bu ne jànkonteel nañ ko waaye sëñ Tuubaa di ñu wax aw leen fii rek aw leen fii boo fi awee day mel ni dañoo jaloon mbir fi barab nga ñëw fekk ko fa waaye na ma la ko waxee woon rek dinaa ko waxaat ne ko lii ñëw ci suñu kanam mu yeneen i liggéey duma ko ci wor duma ko ci wax lu dul noonu duma ko fen duma ko sàcc luñ ma jox dinaa ko ci def lu ma amit dinaa ko ci def li ma ko waxee woon ruug yi rek laa ant laa xamul moomuma ko waaye fit wi ak jom gi dinaa ko ko jox ba dara du ci des jërëjëf Mbàkke yéwén nag maa ngi ñaan yàlla ñu nii ñu ko ànde ba joxe caabi ji ñu àndaat ko ba joxe yeneen i caabi ci barkeb Sëriñ Tuuba na nga xam ne daal man ab soldaar la soldaar nag te ma yàlla it retraité ma yàlla it noppalu waaw man daal na ma dal rek laa la maam Cheikh Ibra nekke woon rek noonu laa bëgg a nekke na ma dal rek ndax man sama maam baay Fall la sama baay Baye Fall la liggéey rek la ñu xam kon maa ngi lay gërëm ñu àndandoo ko ma lay ñaan maa ngi lay ñaanal ci kattanu sëriñ Touba ak maggu liggéey bii loo bëgg def yàlla na nga ko def te nga te nga te ñu ànd ko te nga defe ko sa sago te mu ànd ak wér ak gudd fan ci barke ci barke borom Touba